2011 day waaw waay waay naka la askan wi ci boppam kon wàccee ca mbedd moomee ak ca buntu assemblée nationale day ba wañ loxo Ablaye Wade kon moom dellu ginnaaw na ca projet boobee bu dee bu dee juin 2011 waaw wàllum baare kon Abdoulaye Wade ci troisième candidature u troisième mandat ba wala kaaral bloquant ba wala ticket présidentiel ba waaw 3 juin 2021 bi lé dama ne la bukki boobee mooy yootaat gars yi de troisième mandat président Macky Sall waaw dama la ëttu démocratie bi day troisième mandat ba fay xeeñ yéene kaa gi ne opposition bi de ma nga jëm nag ca asulem Grand Yoff te jàpp na ne ñi nga xam ne ñoo ànd ak Macky Sall tey a ànd ak président Macky Sall day ñu ngi commencé dànkaafu Ousmane Sonko Guy Marius Sagna ak Bougane Gueye Dany mi lé ne fee def récupération politique rek 23 juin boo ko leen ca le témoin yéene kaay ne gis nga 23 juin boobee xuloo ba ca géñoo ka ca géñoo ka ana kuy bàyyi 23 juin ana ku ko jur problème héritage la di waaw waaye ñi nga xam ne ñoom ñoo président Macky day place de la nation waaye M2D classe politique bi kay ci xat-xat rek dañu nekk laa la wax enquête yéene kaay ne déggoo leen ma de mbirum ndonnante la la ne mbirum mobilisation la tamit dëgg la waaye xam nga lan moo jaaxal gaañ ah njiital M23 woon aluntin bataaral gi nga xam ne kon bataaral ne ko ni lée daal di ko noppi moo jaaxal ñëpp waa M2D day la tax ñuy na ci xam ne kon nguuru Macky Sall gi moom la nekkee ci mim réew waaye ñi ànd ak moom day parce que force bu APR waaw nee nañ Ousmane Sonko Bougane Gueye Dany ak Guy Marius Sagna bokkuñ jaax waaw sur saane lii xeeñ neexul lay lii xeeñ gazay xeeñ parce que ñenn ñoo xam ne ñoom laas bajaan la waaw nee nañ bërëb bërëbu jaamukaay yàlla la chaque àjjuma nañ fay organiser ay xadara du ñu bàyyi nag ay nit yoo xam ni setuñu ay nit yoo xam ni xeex guerre la ñu xam di fa dikk du ñu ko nangu réew mi quotidien ne waa M23 sax moom lan moo fa desati alerte yéene kaay ne dara rien Sénégal ay jàpp nañ ne M23 googe dara de sot fa laa la wax parce que la taxoon ñuy xeex waay waay ba léegi nii la looloo ngi fi saa bu nekkoon ca M23 googu mais fekk nañ nguuru Macky Sall gi yàgg na lañ doon xeex yëpp a ngi fi ba léegi laa la wax xoolal ma njabootu Macky Sall gi lé ni ñu duggee ci biir nguur gi famille présidentielle ba da ngeen wax xoolal lëndëm lëndëm gi nga xam ne kon moom la ñu ci fichier électoral bi lé da ngeen cey wax wàllum parrainage bi nga xam ne ay candidat yu dëgër kat la éliminé ci élection présidentielle yo da ngeen wax yorin gu bon di mal gouvernance da ngeen wax li xam ne moom la Macky Sall ak waa këram gi lée nekke ci suñu dangeen ngeen cee wax foqati gi nga xam ne kon foqati ngeen ko jaay doole nit ñi da ngeen cee wax wax sa xalaat yeex ci mim réew da ngeen cee wax mooy confiscation liberté yi da ngeen cee wax yéen kaa gi ne waay waay yéen m waaw boo leen bëggee seen der bi defaru waat am wax le quotidien yéen kaa ne en tout cas 23 ba day xaar ko ñaar M23 M2D Cerno Bokum day ci 24 heures waaw ne man ba waa M23 daal di may invité ma ne leen demuma d laa jëm soo demee ba tële ne li ñuy laam-laamee ci wàllum troisième candidature Macky Sall bi la yow mënoo caa wax kon na xeexu M23 waroo ko yenu jiital Moussa Adja day yemu ca parce que cër na bokk moomee waaw nee na bu dul dara sax doomu aadama yi nga xam ne kon ñoo deewoon 23 juin 2011 gàkk-gàkk la ci yéen moo tax man du ma wuyu M23 d ca Grand Yoff gële à partir de 15 heures waa PDS ne leen retande tafsir cooy day ci 24 heures waaw porte le PDS nee na sénégalais xam nañ ne yéen leen doon caaxaanee di leen fooye ndax leen opposition bee war a bañ a naxante de sursaane en tout cas élection di ñëw day waaw premier réunion boo xam ne day leaderu opposition bi danañu ko amal ngir xool nu ñuy amee benn liste dat wa xam nañ ko de jàpp nañ dat wa de suba ci alxamis yi la ñuy daje critique yéene élection maire yooyu eh, au suffrage universel direct nga xam ne askan wi ci boppam kon ñoom ñooy falal seen bopp seenu maire dootul nekk ci ay conseil municipaux mbaadu nguur gi da caa bëgg a dellu ginnaaw maar di taali bu dee jubóon nañ ca day waaye copp tey ba léegi nii dañ koo yóbboogul assemblée nationale te am na ñenn ñoo xam ne ñoo nekk ci nguur gi day la Benoît Samb ak Cheikh Sarr ña teewaloon Macky Sall ca dialogue ba d'accord woon day am ne ñu ne waa PDS ak waa këram waaw maire yi ñu ñàkkoon yëpp lañ bëgg a gañawaat très bien ça la révision si liste électorale yi day waaw ministre intérieur Antoine Diome dindi na ak sous préfet Babacar Mbaye Ngaraaf ci tribune yéene waaw nee na si may woo président Macky Sall mi mooy mu def tournée sociale nit ñi sonn nañ sur saane Maguette Sène day maire Malicounda moom day def na tournée médicale ay consultation gratuite faj nit ña looloo tax ba askan wa nga xam poste de santé bu faajaal ca Joal waaw waaye benn sa saab lañ fa naroon a violé de mar d' itali waaja kay takk na loxo ba agresseur ba jam ko ca digg ginnaaw waay laas Macky Sall day sécuriser na les données administratives sur quotidien inauguration data center ba la day sa dem ñaa jox dama ne la Macky Sall kay ma ngay contrôler na léegi les données le soleil yéene kaa inauguration data centre national googe ca jam ñaajo waaw Sénégal kay moom na boppam léegi bokk bëgg di leen gëm way xaralay kay léegi nag ñoo moom suñu bopp waa grand place ne suñuy bagage kay léegi nag doomal dama si bitim réew ak data centre gi président Macky Sall day ci Dakar Times la center bu jam ñaajo gi lée waaw révolution la ci suñu souveraineté digitale gi direct news ne coowal piratage bi dox ci diggante 2STV ak TFM waaw El Hadj Ndiaye day lu mel ni xame Youssou Ndour ak ñamu àndal di parce que El Hadj Ndiaye nee na Youssou Ndour ak ay rakam day piraté nañu suñuy fréquence 2018 ba léegi ni lée naa plainte de la république dafa ku ñu jubóole déet waaye El Hadj dal 2STV ne dama lii cybercriminalité la te man bokk ci ñi nga xam ne ñoo fabriqué Youssou hélas Ndiaye na mais xoolal tey ñoom waa TFM li ñu jëlee 2STV boo leen génnee TFM dara dootu fa def laa la te lañ def ca Sodav gere walaay man duñ ma ko def parce que loolu wàllum banditisme la